ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di boroom guddi gi tax ñu teew fi loolu weesoo ñu sant waa Thiénaba TV ñoom ñi seet si woon ëttu maam Jibril sekk fii ci Thiénaba sekk ginnaaw bi ñu ñëwee fekk ñu fi kilifa gi di Cheikh Souleymane sekk borom xaas waaye doomam jige ko lool di Cheikh Abdoul Aziz Seck taxawu lu bari ci kër gi bi yàlla dogalee Cheikh sëriñ bi recevoir ay dayre yi fi daje woon doon lu xawoon a takk lool ñu fekk muy dallu ñu amal liggéey bu rafet ñu ñëwee am kàddu yu ñu bëggoon a jooxe rek waaye kilifa gi ñu ci fekk muy Cheikh Abdoul Aziz Seck waaye di sëriñ daara ca Faas nekkal fa sëriñ bi yàlla dafa dogal ne waa cheikhu cheikhu canaba canaba tv bi ñu ñëwee moom lañ ko fekk alim min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim laa xawla wala quwata illa billahi l alil azim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal ci bis bu tedd bi nga xam ni ñëw ngeen fi li nga xam ni euh, mooy bésub gàmm defe naa lu ci waaye ñaan mu nangu su ko defee bu sëriñ Abdoul Aziz Seck jëlee kàddu dina leen defal ay ñaan yu ama am solo ndax bis bi bis la boo nga xamante ni ku ci ñaan rek suñ borom du delloo ñaan yi dana ko nangu incha allah waaw fi ngeen ñëw nag comme ni ko suñu rakk bi sëriñ Moustapha Seck waxee rek ñëw ngeen kër goo nga xamante ni kër gu am diine la kër guy doxal ci wàllu lislaam la euh, bi ngeen ñëwee ngeen fekk sëñ bi euh, xaw a sonn lool ndax euh, daayira yu bari yi nga xam ne ñoom la doon recevoir mooy xaw a dallu noonu waaye comme ni ko sëñ Moustapha waxee su ngeen fi fekkee sëriñ Abdou Aziz nga xam ne doomu sëñ bi la su ngeen fi fekkee sëñ bi di noppalu ngeen fekk ko fi mel na ni sëñ bi ngeen fi fekk lu mu wax sëñ bee ko wax lu mu def sëñ bee ko def di suñu mag ju baax nag waaw suñu mag ju yaatu waaye suñu mag joo nga xamante ni ku am xam-xam la te it ku xam la muy def la te xam tamit ni nga xam ni moom lay doxale ak ay rakkam di nuyu suñu rakk ji tamit di sëñ Ousseynou Seck moom it ñu ngi koy nuyu baax a baax def na euh, ay taxawaay yu am solo ci gàmm gi ci kër gi waaw lu ko sëñ du sant rek euh, tegu ci baat day daw defi ko loolu lépp nag bés bi moo ko waral euh, di bésu yonent bi sallallahu alayhi wa di jaajëfal ñii nga xamante ni sëñ Abdou mii moo tax ñoo tax ñu déplacé wu ba Faas ñëw fi ñeneen ñi ñu ngi ci biti bu ñu duggoon fii du ñu fi xaj xëy na li ngeen yéex a ñëw sax moo tax fekku leen leen fi kon du ñu def tamit lu dul jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi wër ci kër yi di jël lu baax li ngir tegalaa ko nit ñi ñu di ko seetaan yiw wu ci waaye am rek yéen ñi ko jàllale yàlla ngeen ko ci am ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu rek lañ ci amoon ci ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko ciy sànni lu ci dëng rek ñu xam ne ñàkk a matug doomu aadama la waaye lu ci jubit ndimbal suñu borom la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi hadaani ila tariq ahmad attijaani salatullahi bi ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu ci leer ñuy Chérif El Hassani li jaajëfal sunu maam sëñ Cana fayal barki alxuraan di naan di ñaanal sunu maam général des Tidianes de Thiénaba sunu maam Serigne Xasan Seck yàlla doole yàggal ko fi ba mu naal yi mu naal yëpp mu mën ko sottal barkeb Cheikhu Thiénaba barkeb alxuraan di nuyu mboolem kilifa yi yi nga xam ne ñu ngi ci biir Thiénaba ak bitti Thiénaba di nuyu ñëpp di leen jox seeni wàccuwaay waaye di ci jiital waaye wala di ci teg sunu kilifa ginnaaw bi ñu jiitalee xalifa ba pare muy suñu wéyjur di suñu sëriñ di suñu lépp kilifa goo xam ne kallaahu gu mat kilifa la ngeen fekk nag muy dallu waaw daa fatu ndax ni ko sama rakk ki waxee sëñ Moustapha sëñ Góora soo ba léegi ngi ci daayira yi wala dem ba léegi sax waaye tey la doon def cérémonie fii ci kii mu ngi ñëwoon fekk ko fi waaye dam naa daa di dallu ngeen egsi waaye nag Ah, li ñuy wax al waladu sirru abihi doom mooy secret baayam ñii ñëpp ak njabootam la moom rek waaw moom rek ngeen fi fekk waaw ah, dara jógu fi tubaarakallaahu di kontaan ñëw gi mel na ni sëriñ bi ngeen gis ndax lii ngeen di def ngir yaatal aw yiw la rek yaatal xam-xam yaatal ak mbaax lépp la xamante ne bi tey ñu ngi koy def ci bis yonent bi sallallahu alayhi ngeen jàllale ko ci nit ñi bañ mën cee jëriñu sëñ bi waxtaan na ci lu am solo ci doomu aadama nu mu war a dundee ci àdduna bi waxtaan ci yu am solo waxtaan ci rasulullahi sallallahu alayhi waxtaan ci suñ borom subhanahu wa taala nan lañ ko war a dëgmalee nan lañ ko war a jaamoo nan lañ ko war a kennalee tawxid wér a wér mu jàngale ko jàngale it politique réew mi ni muy doxee ni président war a doxale ci yëram askanam ñu mu tëj mu tijji leen ñi muy dóor mu bàyyi xam ne yàlla da koo dénk ci nguuram jox ko waaye jàngale it yi ni ñu war a doxalee tubaarakallaahu ci masla ci naxante ba am li ñu bëgg ñoom it ku ci nekk mën ngaa doxee doxin woo xam ne wu rafet la wax waxin waxin wu rafet wa quulu linnaas xusnan ngir alquran na ngeen waxante lu baax ak lu rafet waaye politique Afrique laay wax sax du wax Sénégal lu ñaaw xasante maar di taali ku jekk sa morom mën ko toroxal mbaa nga mën a rey nga koo mën a mystique ba mu ba mu faatu mbaa am feebar bon dal ko nga def xam loolu nekkatul politique leneen la waaye bu dee politique muy baaxal li nekk ci bi muy islaaxu al mujtama baaxal société bi kon loolu jarul xasante jarul rayante kon loolu yëpp sëriñ bi jàngale na ko waaye li mu jàngale lépp ki tax mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax woykat ba dane woon muhammadun dikruhu ruuxun li anfusina waaye muhammadun shukruhu fardun ala al umami mu yonent dikruhu di ko tudd di ko fàttali ko di ko tagg mu ni ruuxun li anfusina moo bu doon suñ bakkan yi dafa ami ruux wala suñu ruuxu jëmm yi lan la lan moo koy dundal mu ni tugg tudd yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye muhammadun shukruhu fardun ala al umami mu ni sant yontu yàlla muhammad ni ko jërëjëf di ko fanaanee waaye di ko fanaanee tagg comme ni ñu ko defee démb ci penc ibnul muhayib yenduwaat ne ci ba cérémonie bii daw nii nee na di ko sant ba ba ba ba ba fu ñu mën a yem nee na fardun ala al umam nee na loolu farata la ci képp ku waaye gis nga li li li la yàlla waxoon ci alquran ni lu ngi ni dajaloo dajaloo ci mbégte ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waaw dajaloo ci mbégte ñëw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën nga gis ni yonentu bi moo waral lii lépp moo waral ñuy daw mooy waral ñuy dox mooy waral ñuy sonn di wuti mbubb yu baax di wuti bernde ngir lan teral gën yonentu yàlla muhammad ñëpp di daw ci ndox mi di xuus ci ndox mi di daw ci naaj wi di sonn lool jànkat jàkkonteeg ay coono yu bari ci oto yi ngir lan yontu yàlla muhammad waaye jar na ko nag ndax muhammadun zinatu dunia wa ladatuha yontu yàlla muhammad luy neex amu fi yontu bi rek moo neex moo dàq lépp waaw luy taaru amu fi yontu bi moo gën a taaru ñëpp waaw loolu la ko waxee woon nga gis ni yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam koo xam ne bi nga gënee jamono jamono sax dafa dafa dafa muuñ di bég wulida al huda al kainatu fal kainatu sama wa famu samaani wa famu zamani tabassumun wa sana'u nee naa yonent bi sallallahu alayhi bi mu dikkee jamono nee na jamono sax dafa muuñ jamono dafa dafa bel kontaan kon kooku ku ko am di ko sàgganee nga xamante ne bi yàlla ni mu rëyee ak ni mu toll ak alquran ak ni mu toll nga xam ne loo bëgg mi ngi ci mu mën cee jukkee inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yéen yi nga xamante ne bi gëm ngeen ma te di ma jaamu day leen julli ci yontu yàlla muhammad ndax man mi maa ko njëkke te samay malaayka yi ñu ngi koy def kon génn julli gi yàlla def gi yàlla di def mooy lan julli ci yontu yàlla Muhammad ndax yàlla du julli mënut a jaamu kenn moom moom moom moom yubadu wala wala yabudu ahadan yubadu yàlla lañ koy jaamu waaye kenn mënu koo jaamu wa maa xalaqtul wal insa illa li yabuduni dañ koy jaamu waaye mënut a jaamu kenn nee na li tax ak jinne bindu ma leen lu ñu jaamu ma kon yàlla du jaamu du bindu jaamu pare kon di ko jaamuwaat waaye nag génn julli daf muy julli ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam koo xam ne boo jullee ci moom benn yoon am fukki mu julli ci yow fukk nga julli ci moom fukk mu julli ci yow téeméer nga julli ci moom téeméer mu julli ci yow ñett euh, mille kooku amuñu fayam koo xam ne nee na ci xadis bu nit jaam jullee ci man yàlla dina ma delloo sama ma jug fay jaam boobu julli ci man koo xam nga ni kuy weddi ni waruñu ko màggal nag ci ay caaxaan nga ne ku koy weddi rek fexeel bu ñuy noddu ci jumaa ji ni ma koy faral di waxee bu ñu ne ashhadu an laa ilaha illallah waaye nañ ci teg sa baay ah bu ñu ne ashhadu an laa ilaha illallah nañ ci teg ku la jege wala ñu teg la ci kenn rek ngay dégg ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon koo xam nga ni moo gën ñëpp xayru xalqillah am na ñu koy weddi de am na ñoo xam ne li ñuy wax naan sayiduna muhammad nee na waruñu koo wax nee na ndax yonentu bi kenn waru waru koo woo di teg ak sayidu Muhammad rek la ñu war a wax waaye ñii ñoo ñoo ñoo xamari te dak gàttu xam-xam ban dégg naa ni di ko wax ñu ñu ñuy weddi loola kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jar na lu ne koo xam ne luy leer a lamp bi mooma jant bi mooma weer yu mooma ci dara jaam lañ bindee lépp yow dund gi ngay dund loo lu mu mën di doon rek yàlla ci moom la koy jaarale ngir nga jot ci dafa wax ci xadis ne allahu huwa al mu'ti wa ana al yàlla mooy joxe waaye man yontu yàlla muhammad man maay séddale lii wane ni moom mooy bunt yàlla yàlla daf ne woon ci xadisul qursi ni kuntu kanzan lam uraf fa aradtu an urafa fa xalaqtu xalqan fa bihi taarifuni damaa nekkoon benn magasin bu ñu lumb ma bëgg ngeen xam ma jëriñoo ma ma ab bunt ngir ngeen mën a jaare ci bunt boobu dugg ci magasin bi waaye mu bunt boobu mooy yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy xabibullah kooku mooy rasulullah kooku jar na moo tax lu ñu am nga gis kilifa yi foo ci dem rek ñuy rey nag yeeg la ca aju lu mu mën di doon teraanga yeeg yëpp yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko waral koo ji gis kanamam di leer lu ko may mooy salaatul fatiha bi mu yor di julli ci yontu yàlla Muhammad rek sallallahu alayhi wasallam dem ba nuru ko ku la gis fopp ah, bëgg naa la fekk yow leen rek yor muy salaatul fatiha di julli ci yontu yàlla Muhammad boo bëggee xew a julli ci moom boo bëggee taar del julli ci moom boo bëggee bayre del julli ci moom boo bëggee mbubu yu rafet del julli ci yontu yàlla muhammad boo bëggee xaalis del julli ci yontu yàlla muhammad secret bi gën a gaaw ci secret yi mooy julli ci yontu yàlla muhammad bi ci gën nag mooy bu ñu suñu sëriñ jox mooy Cheikh Ahmed Tidiane de salaatul fatihi ku ci sax doo ñëwee kenn kenn loo raw yaay rawe yaay jiitu yaay avancé ndax salaatul fatihi ci loo xamante ni bii la xaybu lañ ko bindee cheikh eh, eh, eh, waa ji def ni woon cheikh Tidiane def ni woon ah waxuma ni salaatul fatihi de julli ci yonantu moo gën al alquran waaye salaatul fatihi fa mu jugee kawe na lool kon loolu ngir lépp di delluwaat ci junti julli yonantu yàlla muhammad lépp rek day ëmbaat yonantu yàlla muhammad koo gis muy bég xar kanamam di leer muy belli li ngir lan darajey rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom jees niir yi di dugg ngay gis sëñ bi ah ñi ñëpp li waral lépp sañ say rek mooy yonantu yàlla kon Thiénaba TV ñu ngi gërëm di gërëm sëñ Moustapha ci kàddu yu mu jàllale suñu kilifa daa dugg si léegi sëñ baabagar tubaarakallaa moo waroon toog fii di wax kàddu yu ñuy wax waaye génnoon def nu mel nii ñuy def ca daara ya ngir ñëwaat moo tax fekk leen ko fi waaye kon mooy jàllale kàddu yi kon sëriñ Gora kontaan nañ suñ Moustapha kontaan nañ mbokk taalibe yi toog yëpp kontaan nañ sëriñ bi mi kontaan ci waa Thiénaba TV di leen ñaanal yàlla ci liggéey bu rafet bi yàlla yokku leen ba ngeen doon télé boo xamante ne bi lay doon